le ko nag ci euh, coow la jib ca euh, Colobane ak jaaykat yi nga xam si nag dañ leen di jëlee ca fa ñu nekk mu ni mbir la moo xam si nag euh, déggoon nañ ca laataa ñuy sóobu ci opération yooyu le Euh, mu daal di euh, gis ni itam euh, nguur gi mënul ndaw yëpp ñu daal leen di utalum xëy moom Abdoul Aziz Paye yëkkati kàddu yu ni mel ci bu mu doon amal ab cérémonie di ca joxe lijaasa ñaari téeméer ak juróom fukki ndaw yoo xam si ca commune am ba lañ bokk gannaaw bi ñu tàggatoo ba noppi ñu teewlu ko ko Oumar Mbow. état bi ñun maire bu ci nekk nga xam ne yow yaa war a dimbali fa nga dëkk d'abord mais état bi yombalee leen ko ba nga xam ne bu ñu formé dinañ leen a dimbali ñu financé dëkk il faut ñu defar ko euh, buñ ko bëggee defar nag ci waxtaan lañ koy defaree xëy na bu ñu bu ñu waxtaanee rek bu ñu waxtaanee ñun ñii suñu biir toog impliqué leen si biir waxtaan bi dinañu mën a trouver ay solution donc kenn di toog rek di dóor di gundaatal di di di gundaandaat nit ñi di leen xatal di leen sonal lépp ci biir waxtaan la parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal benn jaboot nañu kenn mën ta dem bàyyi keneen ki donc nañu jël li ñu moom toog xam ne ñoo ko moom xam ñu ko yoree parce que kenn bëggul ñëw sa biir kër fekk nga defar ko ba mu ne ñoŋ nit jóge ci àll bi ñëw yàq ko bu ko yàqee di nga digaaleeg donc lu tax bu ñëwee léegi dafa bëgg a dem ci toilette yi mën nañ ko awalee ci yoon ba du yàq dara ci kër gi ba dem def la muy def ba naat te du fa yàq dara te foofu laay woo ñëpp na nit ñi dal nit ñi dal na nit ñi dal te ànd seen xel adduna du kër adduna du kër. moi j'ai collaboré avec eux c'est eux-mêmes qui m'ont donné une date pour faire gannaaw Colobane googee itam euh, Sandaga fan yi yëpp déguerpissement bu metti moo fa am te maire bu euh, Dakar Plateau soobu ca nag ak ay euh, ñoñam Alioune Ndoye nag ba fii dafa lànk ne du dalal ñi nga xam si ñoo di jaaykat ya fare foofe loole la ki yore kàddu association taxawu Sandaga di naqarlu mu ni nag saafara mënta am fi ak ne tooguñu waxtaan Jibi Jaxate lii as lëf la ci waxtaan wu yaatu mi seq ak Ibrahima Diame mooy nekk gan gi. solution bi daal mooy toog taabal ji waxante dëgg. nit ki mënta liggéey alalam ba pare nga xëy en tant qu'administrateur rek nga xam ne da ngay dem tôt ou nga ñëw xañ ko loolu yëpp briser vie am tas famille am loolu nekkul lu mën a nekk il faut le maire soit plus indulgent et plus regardant. parce que dañ ko jox benn liggéey boo xam ne bu jeexee dafa war a dem loolu il faut mu comprendre loolu donc l'histoire retiendra lépp lu mu fi liggéey lu baax moom la histoire di retenir lépp lu mu fi liggéey te baaxul aussi moom lañ koy nettalil aussi moo tax man en tant que son son frère son oncle maa ngi koy lancé waat énième appel pour que mu recevoir ñu même bu dee dix minutes ñu toog ñu waxtaan ñu après la bataille bon c'est c'est le calumet de la paix qu'on faut loolu loolu faut mu xam ko nañu toog waxtaan lim ñu defaral damay am gàcce sax bu ma dajeek nit mu ne ma ah yéen de leen defaral seen marché te yàlla xam ne xaw ma li ci biir. ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Media juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróomi simili yi. ak RFM kumpa jeex na. nguur gi fi nekk bi ñu falook euh, léegi tey jii la def euh, téeméeri fan ci njiitalul njiitu réew mi di président basiiru Diomaye Diakhar fay fële ca Kaolack nag euh, bari na ñu ci yëkkati seen kàddu amit ñu daal di gis ni nag ba fii gisagun lu ñu xam amit ñu jàpp ni kon waxteel na waaye ñi ngi woy di dunde yaakaar nañ fexe rek ba bu ñu tas yaakaar joojee Fatou Mbow ab projet bu amul benn effet doxalin bu convaincrul kenn ci di diirub téeméeri fan yu ñu nekk ci bopp Sénégal di kàdduy coordonnateur régional bu taxawu Sénégal Jokel Gajaga di xam la ne askanu Sénégal daal di nañuy sëngeem ci ñi yore lii di réew mi. électeurs yi nga xam ne nii ñoo nekk ci fichier bi. 54 pour cent yooyu dañoo juum ils sont trompés. parce que dañoo yóbbu projet bi bi mënta yegg. mais a pas de projet. ay xalaat doon wax rek 90 pour cent de moo xeex bi ñu xeex foogoon nañ ne buñ falee président Diomaye Sénégal day mel ni euh, Paris. wuuteeg loolu gis-gis caali fay di soutenir lii di politiku régime bu yees bi conseiller municipal bu commune bu kawoon Kawonat di tàj réalisation bi nga xamante ne njiitum réew bi Bassirou Diomaye Faye daal na koy amal ci diirub téeméeri fan yi ah suñu xel dal na ndax gouvernement Macky Sall suñu defoon woon mën nañoo wàññi dara ñi ñëw nañ wàññi lu mu tuuti tuuti ñu ngi sant yàlla def ay prévention def ay journée de d'assainissement def ko dans toutes les villes di ngeen xam ne gouvernement bi ñoom nelawuñu noppaluwuñu ay si toog ba léegi ci liggéey Abdou Sarr moom di ab citoyen rejek moom ci mbedd bi moom mi nag di xam le ne développement wu Sénégal nag nekk na lu am solo loolu tax ba muy sàkku ci askan wi ñu di ànd ak di dal la laajul yàkkam dafa laaj tekk ak tey li nga xam ne laaj na defar ñu xool ni ñu ko war a defar ma réew mi mu jaar yoon jàmm gannaaw téeméeri fan ñu daal di koy gouverner régime u Bassirou Diomaye Faye nag daal dinay amal lii di bilan bu wutee bu ñu sukkandikoo ci kàddu suñuy interlocuteur ñoom ñi nag di sàkku ci ñoom ñu daal di saafara jafe-jafe ndaw yi baykat yi way jëfandiku yi ak yeneen nu mu gën a gaawee Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. jaajëf faatu Mbow ci subaak léegi nag ñi ngi jox secteur bu nekk kàddu gi ñu def taxaw seetlu jëmale ko ci téeméeri fan yi fi nguur gi euh, def tey jii nag ci ngoon gi ñu yore euh, fare ci dem beek dikk bi secteur transport bi lañu daal di euh, jox kàddu gi la ñu gis nag moo di ne ñoom liñ ci gën a jàpp bokk na ci seen jëwrin ji nga xam ni bii si Dakar dem dikk yi la leen di jaayee doole waaye itam nag kàddu yoo xam si ñoom mënuñu ko daal di xam tax gis ni faw toog waxtaan am Abdourahmane Diallo njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye am ab gouvernement bi nga xam ni ñaar fukk ak juróomi ministre ak juróomi secrétaire d'État premier ministre Ousmane Sonko jiite leen ci dogal yi nga xam ne jot na koo jël bi ci gën a fës mooy wàññi lu jëm ci wàllum dund bi lu mel ni ceeb diwlin suukar mburu ak li mu doon ab dogal bi nga xam ni vingt 24 juin la ko daal di jël ndorteel bi coow li juddu ci meunier ak boulanger yi nga xam ni bëggu ñoon respecté li ci yeneen i dogal mooy arrêté bépp tabax bi nga xam ni ci peggu géej gi la ak ci mbuurkat ci Thiès ci coowal suuf soosu téeméeri bés yi nga xam ni Bassirou Diomaye Faye def na ko ci bopp nguur gi am na ci mbir yi nga xam ne tamit xew na ci lu mel ni lël bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum yoon ñu ubbi ko le 28 mai rapport bi jamono ji sax jox nañ ko njiitu réew mi li nga xam ni leerul ci mbir moomu mooy ba xam dina des am déet ci conseil supérieur bu magistrature ginnaaw ay dogal yi nga xam ni Bassirou jomaay fay jot na koo jël lii di corps de contrôle yi lu mel ni OFNAC ak cour des comptes daal di génnee ay rapport rapport yi nga xam ni sax joxoñ nañu baaramu tuuma ñi fi yoroon nguur nguur gi teewul ñu ngi amal tamit ay audit ci ay direction yu bari ngir xool ba xam nuñ ko yoree woon lu jëm ci wàllum fiscalité yi entreprise yu bari compte bancaire dal nañ leen tëj rawatina ay entreprise de presse ñu jàpp ni dañu amalante yoon ak lempo ngir mbirum leeral nguur gu bees gi tamit daal na génne liste bato yi nga xam ni dañuy napp ci géeju Sénégal yi ñu ngi liggéey jégalu bu baax kon ci nekkul élément bi gën jëm nag ci euh, ñi nga xam si ñoo di euh, secteur transport bi nga xam ni nag dal na ni jibalay kàddu euh, ci wàll téeméeri fan yi nga xam ni kon euh, président Bassirou Diomaye Faye ko nguuram daal dinañ ko fi euh, def ñoom it wax nañ ci seen xalaat Abdourahmane Diallo. ci gis-gisu Pierre mbaaxaan Gomis moom mi nga xam ni moo yor kàddu cadre unitaire des syndicats de transport bu Sénégal nguur gi ba léegi amul lenn li nga xam ne def na ko lu nit mën a teg gët ci seen secteur bi ci téeméeri bés yi nga xam ni Bassirou Diomaye fay def na ko ci bopp réew mi. ci opérateur Sénégal war def loolu mënut a wéy ndax bu doon dëgg la mu fekk Senghor defoon ko Abdou Diouf defoon ko Abdoulaye booy def da boo defee lu dul dëkk ngir wutu ak wane wu doo dem lii dëgg mooy booy wax ak Sénégal ak waa Sénégal yaa ngi wax sa wujur bu jigéen yaa góor yaa ngi wax sa doom yaa ngi wax sa rakk yaa ngi wax sa nijaay yaa yaa ngi wax moom it li ni mel la daal di wax. jub ak jubati defe naa moo manqué njiitu chauffeur yi ak transporteur yi senegal yi di ñaax nguur gi mu amal ab lël ngir ñu mën a waxtaanee wàllum transport te tamit li ñu bëgg mooy liñ leen di tere dawal guddi gi dogal boobu ñu daal koy aj bunt transporteur yooyu nag di am yaakaar ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay dina def kemtalaayu kàttanam ba jafe-jafe yi nga xam ni secteur bi mu ngi koy jànkonteel mu ci saafara. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu wax ci euh, situation ba am ca RTS rajo télé Sénégal gannaaw nag coow la fa jib am ak dal goo xam si nag nemmeeku nañ ko fa li ko waral moo di direction di euh, travail ñoo fa wootee waxtaan diggante liggéeykat ya ak ñi nga xam si ñoo di waa direction ba euh, ñi nga xam si nag ñoo di direction ba nangu nañ ni loole ñu daal di xaatimoon te nguur gi fi nekk def ko mosuñu koo weddi dafa fekk rek jafe-jafe yi nga xam si mën na caa daal di am Pape Birama Diallo moom mooy chef département. président dialogue social bu INSAS ñu teewlu ko gannaaw ci jokkoom ci téléphone beeg Amadou Sabax Ba. Alioune Fall euh, mi nga xam ne mooy représentant directeur général du travail dafa ñaan ñaari parti ñu bokk toog pour waxtaan pour jàmm suuxat jàmm pour jàmm mën a sax ci biir RTS ci la waa direction générale ubbee waxtaan wane ni Pape Alé ñëwul waaye génne na benn bataaxal bu mu leen jox signé ko boppam war ni moom pare na toog pour toog waxtaan ak ay liggéeykatam pour ñu trouver solution ci problème bu mën a nekk nag gannaaw bu weesoo problème bi mais moom ubbi na buntam pour jàmm donc loolu tamit liggéeykat yi fekk ko ci na d'accord nañ ci loolu mais ñu tegaat ci ni remettre ñu en cause maanaam accord bi jéemuñu maanaam salfaani ak ak yeleefu liggéeykat yi dafa tolloog rek jamono boo xam ne ci diggante bi dafa am jafe-jafe ci wàllu finance pour mën a continuer di appliquer accord boobu parce que dafa amoon lu des rek bu ñu signé maanaam bi président de la accompagner mais mobilisation ressources yi il faut que mu am arrêté interministériel ñaari ministre yi ministre tutelle technique bi mooy communication ak ministère tutelle financière muy ministre budget pour ñu mën a def mobilisation fonds yi foofu mu am arrêté boobu parce que moo koy matérialiser loolu moo manqué ñu ne nag ñañ leen ci jàppale ñoom bu ko defee taxawaayu ministère du travail tamit jàpp ci direction général tamit euh, Pape ale ak ñu mu àndal ak euh, ay safam ñu jàpp ci ñu mën a fexe ba trouver ñaari ministre yooyu ñu mën a gaaw accélérer pour mën a am arrêté boobu nu mu gën a gaawee boobu moo ñuy permettre ñu mobiliser fonds yi mën a continuer di appliquer accord bi loolu juboo nañ ceeg ñoom fii dal amagul moo di ca aéroport international Blaise Diagne ak liggéeykat ya mouvement bi ëmb liggéeykat ya fa fare ñoo ni dinañ porter plainte waa syndicat yi ëmb agent aéronautique yi ndax nag euh, coowul euh, suuf terrain ca mbuurkat loola nag nee nañ Euh, faw directeur euh, général bu ay euh, AIBD daal di nag bañ daal di dellu gannaaw ci boobu le pression Omar moom mooy boobu le mouvement Mbagnick tin moo wax ci wolof ñu teewlu kook Ndeye Mati Dieng. ay problème mu terrain yoo xam ne. dañ ko joxoon plateforme aéroportière bi. léegi am ñoo xam ne dañu jël terrain yooyu. seddoo ko seen biir sans décharge sans rien. loolu nag am na ay jéego yu si ciy def. mooy porté nañ plainte ñu def yooyu. pour au minimum ñoom ñu won ñu ay yoo xam ne. ah yi diw jot na si terrain yi diw jot na si terrain yi loolu nag ba léegi ñu ngi si yoon bi te aussi dinañ bëgg yëpp leer dafa am directeur généraux yoo xam ne jaar nañ fi am ñoo xam ne benn lobby la ñu wër ko ndombo gal ko ba dugal ko si gàmb gi loolu la ñuy bañ nag suñu kilifa bii nga xam ne yàlla moo ñu ko wàcceel mu Cheikh Bamba loolu bañ ko dal loolu nag su su nekkee ne du ko dal nay déglu ñu mu war a déglu di waxtaan ak ñu mu war a waxtaan Cheikh Bamba Dièye ñu ngi lay woo ne la ñun soxlawuñu dara loo xam ne lu ñu dugal si poos la ou loo xam ne dañu jël ay nit naan feebar bii mbaa suñu rak ko ñun li ñu bëgg mooy suñu outil de travail dox ñëpp sentir ne changement am na fusion bi nekkoon sur table boobu ba léegi di traîner de midi à 14 heures nañ ko finaliser ñëpp liggéey syndicat yële pour dire vrai heure bu ñu leen déggee rek cela veut dire que premier mai jege si na ou bien benn DG bu bees ñëw ñoom ñu gësam yëngal xam naa ne dem wuti seen xamb ak seen cumukaay ñëw kërëb kërëb mais loolu c'est fini du jàll parce que olof Njaay nee na ñu doon nelaw ñoo daanu si ñu nelawul bu ñëpp jógandoo instant yi ñëpp jógandoo nañ léegi la balle est dans notre camp étudiant ya nekk ca université Gaston Berger bu euh, Ndar ci ñooy artu ne nag jafe-jafe yu méttee méttee la ñuy jànkonteel ngir euh, jot seeni bourse ci opérateur bi leen euh, war a fay loole nag lañ bëgg nguur gi daal di koy lijjanti ci lu dul yàgg Aliou Kara Kandé moo wax seen kàddu ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. mais à chaque fois dañuy gis ni que CESAP yi pour ñu fay étudiants yi problème lay doon te li ci gën a graaw mooy que CESAP yi bu ñu la envoyé sa code balaa ngay jot sa code sa. problème la lis wala ñu ne la problème de connexion la ñu am te huit jours boo ko toogee te jotoo récupéré woo sa bourse xaalis bi dañ koy delloowaat te loolu bu ñu ko defee da ngay gis ay étudiants yuy toog deux mois trois mois du ñu jot seen bourse te étudiants yi mënuñu toog bañ a yor seen i bourse ndax situation yi ñuy dund métti na la gaawee te CESAP point bi ci gën a jege université bi moo ngi nekk euh, fukk ak ñaari kilomètre ak université bi étudiants yi taxaw fii yëpp dañoo bàyyi seen cours bàyyi seen yite ñëw fi agence yi balaa ñuy tijji yàllaa xam études yi jël fukk euh, étudiant wala euh, juróomi étudiant ne xaalis bi jeex na étudiants yi delluwaat université suba ñu ñëwaat loolu nag dañuy interpeller autorités yi ci compétent yépp que ce soit ministre de l'enseignement supérieur ministre des finances premier ministre nañ ñëpp jël seeni ay mesures ñu régler problème bi nu mu gën a gaawee ndax dootuñu nangu étudiants yi di dund situation bu mel nii loolee sànnaar la ca benn dëkk ñaari gaar université ba Der Thiam ba fa nekkee euh, dixième promotion bu étudiant médecine ya daal di nañuy euh, génn fi mu toll nag nee nañ jaaju nañ bu baax a baax ngir mën a dugg ci wàll wi waaye itam xeex lu ci bare bari euh, bokk na ci Ebola ak Covid bi fi jot a jaar loolee lépp kon daal di nañ ci tàggatu Cheikh Anta étudiants yi ci université Iba Der Thiam bu bii lañ leen tàggatee ci wàllu kër doctor di UFR santé tey jii def nañ ci ñoom xam-xam ba ñoom ñépp di ay médecin lañu ginnaaw juróom-ñaari at ñu ko doon jàng fii ci UFR centre université Iba Der Thiam bu Thiès ñoom ñi ne am na yeneen tàggat yu leen defal ngir saa yenn feebar yi tàbbee ci réew mi yu mel ni Ebola wala Covid dinañ ci am taxawaay professeur Roxee Diagne moom mi la ñu tuddee fukkeelu promotion étudiant santé yi génn fii ci université. c'est pour préparer ces futurs professionnels à donc prévenir toute forme de maladie. xale yi médecins yi waajal nañ leen ñu am xam-xam lañu te daañu fexe ba yenn feebar yi yi wàllaate yenn épidémie yi xarañ nañ ci xarañ goo xamante ne dinañ ci mën a taxaw way tawat yi ba du leen lor. prévention doit se faire au lit du malade. moom mi di biologiste jiite kuréel gi di yëngu ci wàllu biosécurité ak biosûreté nee na xale yi de xam-xam bi leen jox. hôpital bu ñu dem daañu wala seen xam-xam. du service où ils vont travailler ils pourront faire eux-mêmes. bépp service bu ñuy liggéey bépp service bu ñuy dem ci l'hôpital yi. jox nañ leen xam-xam boo xamante ne. fu problème amee dinañ xam ni ñu koy saafara. El Malick Let bii moo wax ci turu étudiant dixième promotion. étudiants en médecine. dans l'exercice de notre pratique hospitalière hygiénique. daañu fexe ba hôpital yi set. ba képp ku ñëw ci l'hôpital doo fa jëlee jàngoro ju lay wàll. ba ci woy tawal yi. avec une sécurité garantie. proche du risque zéro. jeexal nañu seenam njàng bañu jox leen seeni diplôme te ñu ci bëri yàkkamti nañ dem ci l'hôpital yi ngir taxawu waaye tawat yi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. drapeau national bi biñ koy def nag euh, jàppaguñ ko waaye euh, athlètes yi dem ca Paris dinañ dem bokk ci Jeux olympiques yi am 26 juillet jàpp 11 août 2024 euh, prime yooyu nag soxal 11 millions 300 300 mille. ci suñuy koppar di prime de participation prime de préparation prime de qualification ak équipement spécifique yi nga xam ni athlètes yi dañ koy soxla prime yooyu nag euh, athlètes yi qualifiés yi nga xam ni invité nañ leen dinañ ci jot entraîneurs yi ak euh, sportif paralympique football euh, moo ci topp ca stade Lat bu Thiès doon dalal tey premier match amicale équipe nationale yu jigéen ñi kon yu Sénégal ak euh, RD Congo gaynde Sénégal dóor leen benn bal ci dara match boobu soxal euh, préparation euh, Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jëm war a am ca Maroc li ko dalee 5 jàpp 26 juillet 2025. ñu des ba tey ci wàllu football ak saison de foot bi nga xam si kon dinañ ko jeexal ni ki ëllëg ci samedi ji ak coupe. Euh, finale coupe du Sénégal. ci mag ñi ci stade Abdoulaye wadd lay am bu 17h jotee euh, Mbour Petite Côte bokk ci national 1 mooy euh, tase kon ak équipe bi bokk ci division régionale 5 di Ferry Foot bu Louga bett ñëpp nag ba egg fii ci final bi di final boo xam ne 100 pour cent amateur la ñaari équipe yi nag pare kon pour disputer ko suba ca stade Abdoulaye wadd bu 17h jotee xool kan mooy wuutu jar. Jaraaf coupe de la confédération Jaraaf moomee war a représenter Sénégal euh, renforcer effectifam euh, enregistré itam départ yu bëri. ci euh, club bi am joueurs yu bees yu ñëw di loo xam ni lu am solo la buñ sukkandikoo ci seen entraîneur Malick Daaf ñu teelu ko ci micro Soda Thiam. vrai que lépp pareegul parce que am na ñenn ñoo xam ne ñoom taxaw nañu ñu ngi ci équipe bi am na ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñu ngi seen kaw. je pense que li ci am solo mooy on est conscient xam nañu ni bon Afrique yi ñu ngi ci bu baax ñu ngi ci bu baax ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci wax dëgg yàlla ça va ñu ngi ciy avancé tamit liggéey nañ daaw équipe bu baax macha allah daaw équipe bi jël deuxième te groupe bi doo xoolee ñetti ñoo ci dem muy Souleymane Cissé muy meilleur attaquant muy meilleur défenseur Aliou Souané léegi daal comme ni ko waxee je pense que ni on va travailler sur ça ñu liggéey bu baax liggéey bu baax incha allah ndaxte match compétition yi moom du yomb bu ñu liggéeyee bu baax waaw def préparation baax def match amicaux yu bëri yu a dëkk comme ça nga xamante ni boo ñëwee da nga koy mottali rek def la kenn lay kàttan incha allah pour géem a qualifié deuxième tour bi ay ñaan yàlla ñëpp jàpp si ñëpp jàpp ci incha a ñu mën a atteindre résultat mooy géem a jàll ci tour bi incha allah bu Dakar coach bu jaraaf bu Dakar jaraaf mi nga xam ni moo war a représenté euh, Sénégal ci coupe de la confédération Villarreal officialisé na euh, ñëw Pape Gueye présenté ko presse bi mu janoo tey ak taskatu xabaar yi waxtaan ak ñoom ci ñëwum foofu ak ambition yi nga xam ni euh, mébét na ko ngir euh, egg foofu ak club euh, bu Liga bi mu jugee Marseille ci fàttali libre signé contrat bu ñeenti at ci Villarreal Pape Gueye ñu teelu ko. Villarreal es un grande club que tienen muchas eh, grandes jugadores. villa Villarreal club bu mag la te ay ndaanaan ñoo fa nekk lii nag opportunité la pour man te maa ngi sant bu baax waa club bi fii bëgg naa fee def ay jaloore xam naa Liga ndax jot naa jouer six mois fële ca Séville sama mébét nag mooy jàppale équipe bi waaye def sama kéemtalaay kàttan wane ko ci ki nga xam ne nag moo soxal ki ñuy tàggat entraîneur bi Marcelino moom it ndaanaan la xam na la ma mën xam na tamit banu genre joueur la moo tax ma ne daal li opportunité bu rëy la ci man dama bëgg nag dem ca kanam fi mu toll nii nag yëg naa sama bopp ne ndaw la te ànd naa ak pas-pas bëgg naa nag miinanteeg ñi nga xam ne ñooy sama naataangoo yi nekk ci équipe bi te loolee jàpp naa ne lu rafet la te lu jaar yoon la am nañ ay joueurs yu mag fii te bëgg nañ tamit sori loolu ci compétition yi nekk fii ci Europe loolee mooy bëgg-bëgg club bi. te ñun bëgg nañoo jeexal saison bi ci ay ndam yoo xam ne ne daal euh, dina mucc ay maanaam dinañ dem ca kaw. aprender de grandes jugadores que tenemos equipo euh, y pienso que es un buena cosas. Pape Gueye làkk espagnol yu leer nañu Amadou Sawar ba tekki ko ci wolof basketball lañ koy jeexalee final four national 1 masculin euh, jàppale nag gannaaw bi ñu ko reporté yoon yu bëri as ville de Dakar mujj na kon euh, xam ki muy euh, taseel final Dakar Université Club lay doon moom éliminé AS Douanes ci score 66 li muy jur nag mooy double tenante du titre bi di AS Euh, dañ ko éliminé kon te du bokk ci euh, saison cinq bu basketball Africa League final bi nii la tëddee ci jigéen ñi AS Ville de Dakar mooy tase ak Duc ci góor ñi itam noonu la demee AS Ville de Dakar mooy tase ak.